di nuyu mboolem ku nekk ci groupe bi ak képp kuy déglu waxtaan wi di nuyu nag sunu ñaari mbokk yi sunu ñaari sëriñ yi di al ustaaz Xalifa Mbuub ak al ustaaz Moussa Cissé di ñaari mbokk di ñaari mbokki jullit yoo xam ne nag dañoo war a waxtaan ci benn masala boo xam ne dafa concerné lislaam concerné diine ji yitteel mboolem jullit yi نوركي وقتان تاي إن شاء الله لنور وقتان انك تاي موين دخ جس يوننتي صلى الله عليه وسلم ندخلو لغن لا شرعا ولا جد جس يوننتي صلى الله عليه وسلم لول موين بوي بنجك بي جس يوننتي صلى الله عليه وسلم ندخلو منا نكلا في شريعة واولا ديت loolu mooy point bi nga xam ni moom la ñaari mbokki jullit yi war a waxtaane insha allahu rabbi ñu leen ñaan nag ñoom ñëpp ku ci nekk nga respecté règlement yi nga xam ni moom la débat bi laaj li ci def dañ leen koy ñaan sax waaye xam naa ni dinañ ko def muy sàmmoonteeg ay teggin ak ay worma ci diggante ba ku ci nekk na na jox moroomam worma bi ko yàlla jox ak cër bi mu ko war a jox muy ñaari jànkat yi waxtaan kon ñi ngi ñaan daal bu ku nekk yëkkati benn kàddu boo xam ni buy wane wàcce darajey moroomam la euh, na doon waxtaan ak lépp ak yu ci xam-xam incha allah kon ku njëkk a jël kàddu ci ñoom ñaar rek laaj bi lay laaj ñoo yéen a ko bokk ndax gis yonent bi sallallahu alayhi wa lu dagan la ci sharia lu mën a nekk la bu dee sëriñ xalifa mbuub lu mën a nekk la lan mooy firnde yi bu dee sëriñ Moussa Cissé lu mënta nekk la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 هو الهادي إلى صراط الله المستقيم بلا جدال وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم مجموعة وقل جاء الحق وزهق الباطل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابن يسر المصطفى جوب di الأستاذ موسى oustaz Moussa ورا mi ñu مسألة a jàkkaar lool gannaaw loolu dañuy jublu ci laaj bi dañuy jublu ci laaj bi mubasharatan insha allah waaw ñun dañuy saxal ne gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu ay nelaw lu sax la ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laata may wax lu sax la sax ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damay wax ne amul lu ko dàq du alquran du hadith képp ku koy dàq ay waxe ñu dul ñoo xam ne seen wax du alquran wala ñoo xam ne seen wax du xadis rek nga mën a jël boo jàngee alquran téeméeri saaree fukk ak ñeent ba mu jeex yi ci naasix ak yi ci mansuux ak saar yu kawe yaag yu mujj yaag yu gàtt yaag amul benn aaya buy tegtale ne gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqadatan mënul nekk amul benn aaya bu koy tegtale xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko jàngee ba mu jeex amul benn xadiis buy tegtale ne gis yonent bi woon sallallahu alayhi wa sallam nekk safaan ba kay la ñuy gis safaan ba la ñuy gis yonent bi wax ko ci xadis bu wér al imaamul buxaari yu soloo ko te xamuma xadis boobu ku wax wérul ci borom xam-xam yi xamuma ku wax ku wax wérul ci ulamaul jarxi wa taadil te xadis bi mooy man raani fil manaami fa sayarani yaraani fil yaqada yonent bi daf cee wax sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku ma gis ci ay nelaw da nga ma gis ci yaqada yaqada mooy kewute mooy mooy dëddu nawm mooy nga gis yonent bi te nelawoo loolu moom xadis la bu wér péng bawoo ci làmmiñ wu tedd wa sallallahu alayhi wa sallam léegi nak man fofu rek lay taxawé déglu sama mbokk al oustad Moussa Cissé ba xam lan lay indi ci walu gogou lu mu indi rek bu soobe yàlla lu mu laaj danañ ci ñëw ci kàttanu yàlla insha allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulilahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa allahuma anfacna bima allamtana wa allimna ma yanfacuna wa zidna ilma allahuma urzuqna al ixlaasa wa sadaada fi lqawli wal amal ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala di ko dimbandikoo di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar musal ñu ci suñu ayu bakkan ak suñu ñaaw teefi jëf di julli ci suñu bu tedd ba sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, di nuyu waa groupe bi waxul ja al xaq di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, di nuyu waa groupe bi yëpp waaye di ci jiital Cheikh Moustapha mi nga xam ne moo idaara jalsa bi waaye itam di nga xam ne moom la ñu seqal jataay bi yaakaar naa bii mooy ñaareelu yoon ñuy seq jataay ci lu mel nii muy débat. Cheikh Moustapha laaj bi nga laaj ci gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqadatan muy gis yonent bi ci lulul nelaw ndax loolu saxna ci sharia man dama nan dedet saxul ci sharia euh li ñak moy li ñu xam ñun ñep moy doom adam mom bu faato da fay joge ci dunduk aruna gi dem ci geneen dundu moy al hayatul barzakhiyya moy dunduk barzakh li ñu xam nag mooy foofu moom ku fa nekk du del siwaat ci Aruna te itam waa Aruna itam du ñu gisantewaat ak moom di waxaat ak moom loolu moom ñun ñëpp moom xam mooy cosaan léegi nag cosaan boobu képp ku ci bëgg génnee ne diw moom dañuy gisaat ak moom gannaaw bu mu faatoo dañuy laaj yow nga indi dalil anta mutaalabun bi dalil dañ lay laaj pour nga indi dalil ci loolu loolu mooy li ci njëkk ñaareel bu mooy alquran ak sunna daf ñoo jàngal cosaan boobu ne ñu doomu aadama yi bu ñu faatoo du ñu delsiwaat ci àdduna waa àdduna itam ñoom duñ demaat fa ñoom borom bi tabaraka wa mu ngi ñuy wax ci alquran atwaar yi nga xam ne dundub doomu aadama dina ci jaar wala qad xalaqana al insana min sulalatin min tin ci suratu muminuun mu ne doomu aadama ñoo ko bind ci ak càllale ci ban mu bàyyeekoo ci ban ñu bind ko ci toq ma niyu def ko alaq def ko mudoxa mujj def ko aw suux mu am yax ñu wodd ko ak yàpp ba muy jeexal aayaat yooyu muy wax étape yi doom aadama di jaar ci buñ koy bind mu ne fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin yàlla barkeel na moom mi nga xam ne moo gën a rafet ci lim bind moo gën a rafet ci aji bind ji léegi nag mu dal di ne summa innakum na dalika la mayituun summa innakum yowma alqiyaamati tubaasuun mu ne gannaaw lii nag mooy gannaaw buñ leen bindee ngeen dund ñëw ci àdduna da ngeen di faatu da ngeen di faatu summa innakum yowma alqiyaamati tubaasuun bu ngeen faatoo itam yowma alqiyaam lañ leen di dekkal ay jooju doomu aadama yëpp lay waxal bu fekkee ne am na kuñ cay seet te di ko ca génnee loola dalil lay laaj waaye képp ku ca dalil génneewut da ngay dugg ca biir te ñun gisuñu benn dalil bu ci génnee ne yonent bi sallallahu alayhi wa dañ koy day ñëwaat fii ñu koy gis wala keneen da koy fekk fa mu nekk di ko fa gis bokk na ci liy tegtale loolu mooy xadiisu jaabir nga xam ne al imaamu tirmisi génnee na ko jaabir nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dajeeg man ne ma yaa jaabir maa li araaka munkasiran lu tax ma gis la nga tiis nii nga triste nee na ma ne ko sama papa dañ ko waree bésub Uhud mu bàyyi fi njaboot ak ay bor nee na mu ne ma ndax duma la bégal ci li sa papa dajeel nee na ma ne ko ah kañ yaa rasulallah yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ma yàlla de waxul ak kenn lurul ci ginnaaw xijaab ginnaaw kiiraay waaye nag sa papa moom wax na moom direct nga xam ne amul amul xijaab lan la ko wax daf ne ko yow sama jaam bi mébétal ma jox la nee na sa papa ne ko li may mébét mooy nga dundalaat ma ma dem xeexiwaat ci saw yoon ñu reyaat ma beneen yoon nee na borom bi tabaraka wa taala ne ko innahu sabaqal minni annahum ilayha la yurjaun la yurjaun maanaam jiitu na ci sama ndogal ne ñi faatu duñu dellusiwaat ci àdduna duñu delluwaat àdduna kon xadis yooyu xadis boobu itam day war a ku faatu moom nekku ne da nga ñëw di e, indiwaat ay ay wax wala ngay dajewaat ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf di wax ak ñoom waaye bokk na ci liy tegtale loolu mooy ijmaa mooy dëppoog boroom xam-xam yi wala dëppoog saxaaba yi saxaaba yi radiallahu anhum dañoo dëppoo ci ne yonentu bi salallahu alayhi wa du fi ñëwaat di wax ak ñoom looloo tax Omar ibn al-Xataab radiallahu anhu mu doon ngéeju naan bëggoon naa yonentu bi salallahu alayhi wa sallam leeraloon ma ñett yi balaam fii bàyyeekoo mooy miraasu maam ak alkalaala ak lenn ci buntu riba yi mu ne loolu bëggoon na doon na ngéeju yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeral ko balaa mu fi bàyyee ko kon bu fekkoon ne moom Omar ibn al-Khattab dafa jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dees ko gis kon du ngéejoo waaye day jàpp ne kon war na koo mën a gis mu leeralal ko masale yi waaye ànd ak loolu yëpp ngéejowul loolu xaw ma jàppul ne kon dañ koy gis moo tax mu doon ngéejowoo ne ak a neexoon balaa mu fi bàyyee ko mu leeralool ma lii ànd ak ne masale yi lu mel ni miraasul jadd mu ci wàllu miraasu maam mu xëy ibnu Shu'ba leeralal na ko après ak ku mel ni Muhammad ibnu Maslama su ma fàttewul moo tax ibnu Hazm ci maratibul ijmaa daf ne dëppoo nañ ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa ak ay saxaabaam duñu delsiwaat ci aduna ba kere yowmu yubaasuun kere lañ leen di dekkal waaye du duñu waa ci aduna kon saxaaba yi ñoom loolu lañu loolu la dëppoo woon ci nekk ci moo tax kenn si ñoom masul toog di xaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu beneen bi mooy am na ay xew-xew yu bari yu xew yoo xam ne bu fekkoon ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam day dellu si waat konoon dana dellu si ci yooyu ndax yooyu moo gënoon laaj mu dellu si waat lu mer ni wutee gi am ci diggante Fatima ak Aboubacar radiyallahu anhuma ci kii na ko jox ma sama miraasum bàyyi kii ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne duñu donn loolu mu tax ñu am ci wutee ba chian yi sax alayhi minallahi ma yastahiqoon ci loolu dafa bokk ci la ñuy sukkandiku di ci jam Aboubacar te Aboubacar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ma doon wut xarit ci sama xeet Aboubacar lay doon kazalika itam nee na Fatima bidaatun minni ab dogit la ci man te ku ko def lu métti man nga ko def kon bu fekkoon ne day dellusiwaat waroon naa dellu si régler problème boobu beneen bi mooy li faatu ci ay saxaabaam ci diggante xew-xew yi am diggante Aïcha ali ci benn côté ak talha ak zubayr nga xam ne talha ak zubayr ñu ngi bokk ci alxasratul mubasharuna bil janna ci xew-xew yooyu lañ leen rey ak li xew ci waa Saam ak waa Kuufu muy diggante ali ak Muawiya ci maxrikatu Siffin ak loolu yëpp la ci ay jullit kenn xamul nu mu ci ay bariwaay te yonent bi alayhi ñëwut réglé loolu te bu fekkoon ne dañ koy gisaat mu ñëw di ko réglé konoon dana ñëw réglé yooyu kon mënuñoo toog ba junne at ak nangam ay nit ñëw naan dafa ñëw ne leen diw sàng ma la di woy fële de ab wëliyu la wala ñu ne bu ñu toogee ci seen jataay moom day ñëw ci jataay bi nga xam ne amul benn faayda mu bu mu fay def si wala boobu sax ñu naan moom moo joxe nangam ak nangam kon loolu lenn la rek ci ay addila yi wane ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam du delsiwaat fii ci aduna te itam waa aduna du nekk di wax ak moom waaw Oustaz xam naa boo dégloo waxu sëñ Moussa Cissé bi incha allah nga ñëw yow itam sëñ Moussa mel na ni moom andi lu muy tegtaloo ci alquran andi na it lu muy tegtaloo ci sunna ñëw ñëw na ci waxu saxaaba ñëw na it ci ijma ni mu déggee ni moom yoon salaa salaam kenn mënu koo gis xam naa sëñ Moussa audio bi gudd na sëñ xalifa li ñu lay ñaan mooy yéen ñaar ñëpp lu leen ñaan mooy ku ci nekk cinq minutes yi nga war def wala six boo ko mën def ñaari audio sax moo gën ndax audio bi gudd bi lool day indi jafe-jafe ki war a tontu buy ñëw incha allah ku ci nekk daal booy defa bu ñu la joxaatee kàddu nga gàttal rek bu dee cinq minutes wala six ngay def boo ko mën def ñaari audio sax moo gën. waaw ma ñëw pour tontu sëriñ Moussa ci yi mu indi yëpp li tax ma yéex a ñëw ci tontu bi nag xam ngeen ne audio bi neuf minutes la neuf minutes dafa xaw a bari il faut ma toogaat neuf minutes déglu ko waaye léegi ojo bi laa bëgg a topp benn far benn di dajj di sànni di dajj di sànni ba nga xam ne li mu indi woon moom lépp dama koy delloo. parce que dara jotewu ci dara li ñuy wax man na maa wax ne kalaamuhu mu baal ma ustaz Cissé kalaamuka kulluhu maazulun amma li ñuy wax ndax lii ma lay bëgg a wax lii nga wax ni e, doomu aadama yi sunu borom dafa ne bu ñu faatoo du ñu dellusiwaat ci àdduna ñun débat wuñ nekkuñu ci masalam dellusi ci àdduna de جس يونتبي صلى الله عليه وسلم ميغي أمي عن طريق الكرامة لا عن طريق الرجعة والعودة أمي ولتي ديلو سوار دي باي سيطول ولا ديلو سوار إلدي لك دي تيبي مي مي أمي عن طريق الكرامة لولو ابن حجر العسقلاني صح وخنا كو سي فتح الباري تي فوكيلو خاج بي اك بن وخنا ني دغلو لي ماي وخ اما من راه بعد موته وقبل دفنه فالراجح أنه ليس بصحابي وإلا لعد من اتفق أن يرى جسده المكرم وهو في قبره المعظم ولو في هذه الأعصار وكذلك من كشف من كشف له عنه من الأولياء فرآه كذلك على طريق الكرامة دنجا ابن حجر دفع وحنين ñi nga xam ne yàlla wuññil na leen ba ñu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gis ga amee ci an tariqil karamati duñ leen wooye ay saxaaba kon yow li ngay wax mooy affaire ñibbisiwaat ci àdduna gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqazatan du masalam ñibbisi ci àdduna masala la moo xam ne dafay am an tariqil karama te sax lii nga wax nii ne nit ñi bu ñu faatoo du ñu dellu siwaat ci àdduna su fekkee gis ab yonent loolu mooy tekki dellusi ci àdduna yonent bi bi muy gis yeneen yonent ya ca laylatul isra dañoo dellu woon bu fekkee dañoo dellu si woon li nga waxoon dajjiku na su fekkee dellu siwuñu woon an tariqil mujiza la amee woon dëggal nga ma ñaar yooyu moo fi nekk beneen bi li may dajjiwaat ci sa wax ji mooy danga wax ne summa innakum yawma alqiyamati euh, non boobu leeral naa ko euh, boobu leeral naa ko xadiisu jaabir bi nga wax moom itam jotewul ak dara li ñuy wax ci ki ñu rey ci jihaad mu bëgg mu bëgg ñu dundalaat ko mu ñëwaat fii di dund ci àdduna bi yoraat jaasi di jihaad loolu bokkul ak gis goo xam ne dafay am an tariqil karama kooku li ma wax léegi yóbbaale na beneen bi itam li nga wax ne ibnu hazm moo ko tuxal loolu tanaqut bu metti moo ci nekk tanaqut bu metti ndax yow waroon ngaa liir li ibnu mu wax ba mu jeex du da nga wax ne ibnu hazm dafa wax ne nit ñi bu ñu faatoo ak yonenteeg yëpp bu ñu xasee ba faatu bu ñu dellu siwaat ci àdduna lu bu ñu dekkee liiral texte bi liiral li Ibnu mu wax est-ce que bu ñu dekkee ci àdduna lañu jëm si kon loolu wax la joo xam ne bu doon def nga li ñuy tudde ak ak shakk wa taharri wax jooju doo ko jël ngeen baal ma wax jooju eh, Ahmad loo indi na ko ci taqdisul ashxaas fi fikr suufi mais wax jooju jërul jël ndax bu ñu dekkee ndax ci àdduna la ñuy dellu si wala déet loolu beneen ci la parce que àdduna moom comme day tukki comme day jeex nañ fi dellu seewaat loolu moom beneen affaire la ah beneen bi nag mooy bu mujj bi bi nga xam ne itam moom lay dajji mooy alxilaafu bayna sahaaba wuute bi amoon ci diggante sahaaba yi bañ tuur ci deret ju bari diggante ali ak muawiya nga ne lu yonent bi dellu siwul pour atte leen diggante fatima ak sayiduna abubakrin radiallahu anhum jamian lu tax yonent bi dellu si woon ngir àtte leen dama naan la déglul li may wax bu baax yonent bi néewul woon saa yu ngeen wuutee bay xeex damay dellu si loolu waxu ko woon loolu waxu ko woon ba ngeen di ñu ko laaj xam nga yonent bi lan la waxoon mooy li nga bàyyi te waxoo ko mooy man raani fil manaami fa sa yaraani fil yaqada yonent bi dafa digee woon ne képp ku gént gis ma da nga ma gis ci kewute loolu la waxoon loolu nag moom mi ngi am ba léegi ay nit a ay nit a ngi gént di ko gis ci nelaw di ko gént di ko di ko gis ci yaqaba loolu moom loolu moom du fi jóg moo tax ibnu xajar wax wax la ni la ba ci sunu jamono ji jamono jëm doon binde fathul bari mu ne ba ci jamono ji wali yiwu yàlla wuññil nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci an tariqil du tax ñu wooye la ab sahabi kon nag lu tax yonent bi ñëwul ngir atte sahaaba yi ba ñuy xeex dama naan la yaak ñiy déglu ñëpp yonent bi néewul woon bu ngeen di xeex yéen saxaaba yi wala ngeen wuute damay dellu si àtte leen waxu ko woon yonent bi lan la waxoon mooy man raani fil manaami fa sa yaraani fil yaqaza képp ku gént gis ma da nga ma gis fil yaqazati defe naa ne bu ñuy wax gis yonent bi ci yaqaza xadis boobu la ñu war a tudd mais yeneen xadis yi nga tudd ak yeneen ayaat yooyu maazula amma nahnu bi sadadi maa ngi dégluwaat li ci def incha allah xam naa njëkkalante ak waxtu wi eh, dañuy def temps yëpp ci ojo mbokk mi balaa may déglu audio bi ci topp mel na bi muy saxal ne dañuy gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lurul nelaw ci yeewute dafa indi xadis boobu di mooy man raani fil manaami fa sa yaraani fil yaqaza ngir tegtaloo ci ci kon dañuy gis yonent bi salaatu wasalaam ci lurul nelaw ñun dañuy wax ne tegtalu boobu baaxul tegtaloo hadith boobu baaxul waaye balaa ñu ñëw ci tegtal bi sax dañuy njëkk ñëw ci jëmi hadith bi ci boppam xadis bi fukki sahaba ak ñaar wala lu ko ëpp dañ koo solo jëlee ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam sahaba yooyu mooy abu hurayra abu xataada anas ibnu malik jabir ibnu abdullah abdullah ibnu mas'ud abu san al xadri abu juhayfa abdullah ibnu abbas taarix ibnu usayma ak ali ibnu abi talib ak abou bakarata ak abdoulahi ibnu amru radiallahu anhum ak sax mën naa am ñeneen waaye fukki saxaaba yooyu yëpp ak ñaar ba sax lu ko ëpp kenn ci ñoom indiwul baatu fa sayaraane fil yaqada lurul ñaari xadis ñoo ci ñëw benn xadis bi mooy xadisu مالك ابن عبد الله xasami حديث بوب الطبراني موكو ko génnee المعجم الكبير mujamul حدثنا محمد بن علي الصارخ المكي حدثنا إبراهيم بن المنذر ابن المنذر الحزامي حدثنا ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن سراح بن عبد الرحمن بن عقبة المعافري عن أبيه أنه سمع مالك بن عبد الله الخزامي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي مؤدي سنة ببرة من سريحة ولا عبد الرحمن ابن سريحة ابن عبد الرحمن جلين جبايم من ديغن مالك ابن عبد الله الخطامي من لي عليه الصلاة والسلام حديث من حديث أبي قتادة لكن حديث من حديث أبي قتادة xadisu abi xataada lan la wax daf ne man raani fil manaam faqad raa al xaq xadisu abi xataada moom loolu la wax léegi nag moom mu indi lafdu bii ne fasa yaraani fil yaqaba léegi xadis boobu nga xam ne moom la tabaraani indi boo demee ci majmaa zawaid bu alxaysami daf ne sanad bi am na ku ma ci xamul am na ku ma ci xamul te kooku mooy wayjuru abdurahman wayjuru عبد الرحمن ابن سريح عبد الرحمن ابن سريح ابن عبد الرحمن ابن عقبة المعافري waajuram di Surayh ibn Abdurahman ibn Aqaba al-Maafiri kooku majhul la moo tax alxaytami mu ne koo mu ne am na ci sarat bi ku ma ku ma xamut kon boobu moom duñ ko mën a jël comme dalil léegi nag ñu jël yeneen yi nga xam ne ñoo ci des mooy kon fukki saxaaba yeeg ñaar yëpp kenn ci ñoom indiwul baatu fasa yaraani fil yaqda bi ziqatil jasm boo xam ne da caa dogu léegi kon benn tarixa lañ fekk muy benn saxaabi yi ci tarixa abi hurayra moom lañ fekk baat boobu fasa yaraani fi ga mu ànd ak dogu nga xam ne da ko wax dogu ci léegi kon fukk yaag benn ñoom andiwuñ loolu kon ci tarixa abi hurayra ngay fekk loolu waaye tarixa abi hurayra moom itam dangay gis ne juróomi nit dañ koo solo jëlee ko ci abu hurayra juróomi nit yooyu mooy kulaybu ibnu shihab jëlee na ko ci abu hurayra boobu daf ne faqad raani fa inna sheytaana laa yatamathalu bii kadalika abdurahman ibni yaqub jëlee na ko ci abu hurayra mu ne fa inna sheytaana laa yatamathalu bii abu salih jëlee na ko ci abu hurayra mu ne fa inna faqad raani fa inna sheytaana laa yatamathalu fii suurati muhammad ibnu sirin jëlee na ko ci abu hurayra mu ne faqad raani fa inna sheytaana laa yatamathalu bii كذلك محمد ابن عمرو جيلي كو ابو سلمى ولا بوك ابو سلمى سي بوبام ني جيلي كو سي محمد ابن عمرو جيلي كو ابو سلمى مو فوف موني ابو سلمى جيلي سي ابو هريره فوف موني فقدر الحق فقد الحق لكن مو ام بنن طريقه بو خامني ابو سلمى موكو جيلي سي ابو هريره ابن شهاب الزهري جيلي كو ابو سلمى طريقه بو ويتم نك داغي فك ay riwaayaat yu bari jaar ca ci yoon boobu boo xam ne yu bari ci ñoom yenn yi dafa sikki sàkk exemple bu ñëwoon ñu ne la am na tariqa boo ne abdaan moo ko jëlee ci ibnu wahb mu jëlee ko ci yunus al ayli mu jëlee ci ibnu ibnu shihab mu jëlee ci abu salama boobu moo indi fasa yaraani fil yaqza mu mu dogu ci waaye mu am keneen ku ko jëlewaat ci ibnu shihab moy harmala jele ci ibnu wahb mu jele ci yunus al ayli mu jele ci ibnu shihab mu jele ci abu salama mu jele ci abu hurayra bobu dafa ne fata yarani fil yaqta aw faka annama raani fil yaqta kun fu dafa sik sak benen tariqa suleyman ibnu wahb jele ci yunus al ayli mu jele ci ibnu shihab mu jele ci abu salama mu jele ci abu hurayra bobu tam dafa ne fata yarani fil yaqta aw kaf aw faka annama raani fil yaqta batay dafa sik sak benen tariqa ahmad ibn jele ko ci ibnu wahbu mu jele ci yunus mu jele ci ibnu sihab mu jele ci abu salama fofu tam mu ne fasa yaraane fil yàqsa aw fak an ma raani fi yàqsa batay benen tariqa muy baxru jele ci ibnu wahbu mu jele ci yunus mu jele ci ibnu sihab mu jele ci abu salama mu jele ci abu hurayra batay fofu tam itam mu ne fasa yaraane fil yàqsa aw lakka an ma raani fi yàqsa batay benen tariqa ibnu akhi ibnu sihab jele ci abu salama mu jele ci abu hurayra mu ne fasa yaraane yàqsa aw fak an ma raani fi yàqsa benen tariqa salamatu maqil jele ci ibn shihab mu jele ci abu salama mu jele ci abu hurayra mu ne fasa yarani fil yaqsa aw fakka annama raani fil yàqasa ak yenen kon yoy yeb ci turuq yoy yeb ñëw ci abu hurayra benn tariqa bo xamne mo jaar ci abdan ibn wahb yunus ibn shihab abu salama abu hurayra fofu rek moo ne fasa yarani fil yàqasa bi diqatil jazm kon yenen yeb andi wul lolu sama simine li manna te besanana waaw sëñ Moussa incha allah xam naa kon bu sa xalifa ñëwee ba noppi def nga taxaqi ci audio bi mel na ni nee nga yow xaalis bi du ñu ko tegtaloo motul tegtal ndax tegtalewul li ñuy wax waaye yow dafa mel ne même bu wéroon ni yow doo ca ndax jëm nga xaalis bi waaye nag def nga tafsir bu yaatu waaw dama bëggoon rek boo ñëwaatee bala ngay tontu ci audio ustaaz xalifa bi nga wax ni ci lu gàtt ci lu gàtt comme tafsir nga bu baax léegi xaalis bi lu ci borom xam-xam yi wax ci gàttal ndax borom xam dañuy wéru wala dañuy wér na wala dañuy bu wéru kenn du ko sukkandikoo wala boog am na ci borom xam-xam yi ñuy sukkandikoo yoo xam ne nangu dañoo sukkandikoo ci xadis bi te wéral nañ ko loolu daal boo ñëwaatee bala ngaa tontu ci audio Oustaz Khalifa nga indi loolu boole ko moom incha allah. waaw kay ma ñëw indi tontu ci euh, ci audio bi sëñ Moussa. ojo euh, bi moom damay wax <laughs> yi fi Oustaz Moussa Rabb nii. damaa xamul moo dindi lëndu jargoñ lu ci war a gën a yomb maa ngi jégalu bu baax ah mais tam ñoom ñaar lay tëkkal lu ci gën a yomb mais dafa am laaj bu ma dafa am lu may mottali ndax damaa bañoon a damaa matalul woon fële mooy ci ojo bi ci kaw Oustaz Moussa dafa wax ne yonent bi lu tax dellusiwul ngir àtte ay saxaabaam bi ñuy xeex ma waxoon ko ne ko yonent bi jigéewul woon ne bu ngeen juuyoo damay dellusi di leen àtte li mu dige woon mooy mandra raani fil manami fa sayarani fil yaqaza ku gént gis ma da nga ma gis ci kewuute loolu la dige woon te loolu moom mi ngi am dara wuute wu ci beneen bi ma ko ci tegal mooy su fekkee ne dikkug ñàkk dikkug yonent bi ngir àtte ay saxaabaam bu ñu juuyoo loolu mooy tegtale ne yonent bi kenn mënu koo gis kon maa ngi koy wax ne baya boo nga gëm ne bi kenn mënula gént gis ko ndax lu tax yonent bi feeñuwu leen ci gént àtte leen te yonent bi nee na man raani faqad raa al xaq ku gént gis ma dëgg nga gis man nga gis waaw lu tax feeñwu leen ci ci gént comme ku gént gis ko moom nga gis dëgg la lu tax feeñwu leen ci gént ne ne Aliyu yaa nekk ci dëgg Muawiya nekkoo ci yoon wala Muawiya yaa nekk ci yoon Aliyu nekkoo ci yoon lu tax yonent bi defu ko woon ni mu ko ñàkk a defee ci gént noonu la ko ñàkk a defee fil yaqaba kon boobu dajji woon naa ko waaye defe naa tey tesaare naa ma ñëwaat ci tomb bi bi xam ne moom la mujj a te mooy e, li mu fi indi nii <laughs> taqdisul asxaas bi mu fi indi fii fukki saxaaba ak nangam solo nañ loolu yëpp du problème xoolal naka téeméeri saxaaba solo xam nga am solo mooy xadis bi Buxaari yi solo mooy man raani fil manaami fa sa yaraani fil yaqaba wér na wala wérul man damay wax wér na yow su fekkee wérul tuddal ma benn boroom xam-xam bu wax wérul waaye wax ji nekkul hadith bi bi di moko solo fi kele di netali ay netali ay netali yu bari ki solo ko ni ki solo ko ni gis nga li nga fi lire lepp wër legi nak man raani fil manami fa sayarani fil yaqaba ben laaj kot la la ci laaj nga indil ma ñan ño wax wërul ñan ño wax hadis bobu wërul bu al albani moom wéral na ko ndax dafa wax ne al inna al haditha ida rawahu al bukhari aw muslim إذا رواه الشيخاني أو أحد منهما فقد دخل في السلامة وجاوز القنطرة مام دفعنا الحديث سكو بخاري صلاة ولا مسلم ولا نيوم نيار ني ولا كنيس ني نيوم نيار صلوك حديث بابا موتينا تجيجي لا فون بي لغي حديث بي من رأني في المنام فسيراني في اليقظه دا خامنا بن شك نيكو تي إن اندي يينين لفظ يو خامنا دا فا ام شك ماني ام شك تودوما لين خامغا بان لا تودو من رأني في المنام فسيراني في اليقظه tuddal ma boroom xam-xam yi wax wérul lool loolu laa bëgg foofu rek la wax ji nekk fekkee nag indiloo ma ay boroom xam-xam yu wax wérul ba yeboo nga nangu ne wér na rek ñu jàll léegi nag ma yegg li ma doon wax léegi bu fekkee ne xadis dafa ñëw fukki saxaaba ak ñaar ba lu ko ëpp soloo ko ci yonent bi sallallahu alayhi fukk yaag benn yëpp indiwuñu fasa yaraani fil yaqaba ci benn saxaaba lañ nekk li loolu te saxaaba boobu juróomi nit jëlee nañ ko ci moom ñeenti ñi ñëpp kenn indiwu ci fasa yaraani fil yàqata ci benn tarixa bi la baat boobu ñëw te tarixa boobu itam amaan na ñeneen ñu ko jëlewaat ci ibnu shihab ñu bari ñooñu itam kenn rek moo ci wax fasa yaraani fil yàqata mais yeneen tarixa yëpp dañ koo wax ci sikki sàkk loolu bu fekkee ne xam nañu loolu loolu ñu tuddee shaab shaab buñ koy xam ne ñuy wax ne maa rawaahu siqaatun muxaalifan li maa rawaahu siqaat mooy loo xam ne ki ko soloo siqa la waaye nag dafa wutee ak siqaat yi dafa wutee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gën a bëri maanaam ki ko soloo ko wóor la waaye nag ñi gën a bëri tolloog moom daraja nekk ñu wóor dañoo wuteeg moom la wax te loolu moo feeñ fii mooy kon yeneen turuq yi ma la limal yëpp ñoom indiwuñu fa sayraane fii liqala bi liqatil bi siqatil loolu ñu tuddee saab loolu boo demee ci ibn hajar xaw na koo junj muy wax toxal jëlee ci almaziri muy wax ne إن كان المحفوظ فكأنما رآني في اليقظة فمعناه ظاهر من بو فكين حديث بي دي محفوظ بي تا بو ني واخي شاذ دا فا جاكارلو اك محفوظ مانام شاذ موي لو خامني كيكو نيتلي كين لا واي ثقه لا واي نا ووتينا ثقات يي لغي نا ثقات لا ني واخ لولا موي محفوظ mu jile ci moom ibnu xajar mu taxo jile ci almaziri mu ne in kaana almahfuudu fa ka annama raani fi lyaqada fa maanaahu daahir bu fekkee mahfuudu hadis bi mooy fakka annama raani yàq yaqza mu ne loolu de maanaa ni leer na kon dafay mel ni dafa ne ku ma gis ci gént mel na ni gis na ma ci ak yeewute mu ne bu fekkee ne nag mahfuuz bi mooy fasa yaraani yàq sax mu door a indi tawilaat yi borom xam-xam yi wax te nag comme wax na loolu bu ñu xoolee max mahfuuz bi danañu xam ne fasa yaraani fil yaqza benn yoon la ñëw kon moom char la moom mënul nekk mahfuuz loolu benn la ñaareel bi mooy li borom xam-xam leeral ci tegtalu sharia al adillatu sharia al adillatu sharia buñ koy tegtaloo foofu dafa am ay mbir yu ñuy xool dafa bokk ci mbir yooyu mooy ndax lii ñuy tegtaloo ci xadis bi wala ci aaye jii est-ce que loolu saxaaba yi ñoom noonu lañ ko tegtaloo woon ak ndax ñoom jëfee woon nañ ko comme noonu ndax dégginu saxaaba yi ak nañu jëfee mbir ma dafa am solo ndax ñoom bu ñu القرآن واقعي تنيم يرون تبي صلى الله عليه وسلم وقلن بين الحديث نيم دين كوي جفي نيم من كو دي جيل دون دين كوي جفي سابون أمين جوم تشين دين كوي جفي القرآن دفلين دي كوريس لولو باكو نكي موي با القرآن وغيني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لكلن نان لن بردو ويخ ولير كي كنم ردو نيور ويخ looloo ba mu amee ba aaya ja wàccee benn saxaabi dafa jël ñaari wëñ gu weex gu ñuul teg ci côtéem di lekk di naan ba keroog mu koy mën ràññee kon loolu na mu ko déggee woon juumte la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy corrigé na ko innama huwa sawaadu leyli wa bayaadu nahaar kon leeralal ko ko kon saxaaba yi bu teg ci ñëwee ñu am ci njuumte ci déggin bi rek alxuraan dafay corrigé yonent bi sallallahu alayhi dafay corrigé waaye bu fekkee nañ ko déggee noonu la nag bu ko defee loolu mooy li continué li ñuy jëfee moo tax bépp dalil asharin yi boo xam ne ñoom jëfee nañ ko nañ ko jëfee woon loola mooy loola moo loola mooy la muy tegtale keneen ku ñëw tegtaloo ci leneen lu bokkul lañ ko jëfee ko tegtaloom ba duñ ko nangu boo demee ci al imaamu Shaatibi ci téeréem bii di al muwaafaqaat ci tom ñeenteel ba ci xëtum ñeent fukk ak ñeent dafay traité masala bi ñuy wax al masalatu thania achara mu ne kullu dalilin shar'iyin laa yaxlu an yakuna maamulan bihi fi salaf almutaqaddimin daiman aw aktarin aw laa yakunu maamulan bihi illa qilalan illa qalilan aw fi waqtin ma aw laa yathbutu bihi amalun fa hadihi salatu al aqsam mu ne bépp dalil ci sharia mënul wéet benn ci ñett yi mu ne benn salaf ñoom dañ ko doon jëfee toujours wala lu gën a bëri wala bok ñom jëfé wuñu ko lulul lu tuuti wala sax ben waxtu ci ben waxtu yi lañ ko jëfé wala sax mësuñ ko jëfé légui ñaar yële traité na ko waaye ñetteel bi ci lay ñëw te moy tolo suñu mbir mi ci lay dugg mu ne wal qismu thalith an la yasbuta an il awalina annahum amilu bihi ala halin fa huwa ashad mimma qablahu ma baña wax arab bi ndax man na ma xawa tardel mu ne ñettelu qismu bi moy li nga xamne saxul ci al awwalun moy saxaaba ya ca saraf ñoom li nga xam ne saxul na ñoom jëfee nañ ko mu ne boobu moom moo gën a tar mu ne nag ñi mujj ñëw bëgg jël dalil bu mel noonu bëgg jël benn dalil boo xam ne saxaaba yi mosuñ fee jëfee lii te mënoon nañ ko caa jëfee ñu bëgg koo tegtaloo mu ne loolu wax mu la wa ma tawahhamul mutaaxir min an min annahu dalilun ala ma saabu laysa bi dalilin alayhi albat nee na loola ñuy wax ne moom la ñuy tegtaloo nee loolu du tegtal mukk mu ne ndax bu doon tegtal saxaaba yi du leen nëbb konoon danañ ko konoon danañ konoon danañ ko jëfee mu ne te itam ku bëgg indi lu mel noonu ne da ngay jëfee lu mel noonu loolu dafay wuteeg ijmaawul awwaliin mu ne wa kullu man xaalafa al ijmaa fa képp ku wuteeg ijmaa yow da juum te nee na xeetu yonent bi sallallahu alayhi du ñu wutee du ñu dëppoo ci ak réer mu ne fa maa kaanu alayhi min fi'li aw tarkin fa huwa sunna wal amrul mu'tabar lépp lu ñu nekkoon loo xam ne dañ caa dëppoo woon ci jëf wala ñu dëppoo ci bàyyi ko loola mooy sunna loola mooy la ñuy considéré mu ne waxuwal huda walaysa sama illa sawaabun aw xata loolu mooy njub parce que dara nekkul fi lu dul njub wala njuumte nee na te ñoom lépp loo xam ne dañ ko bàyyi woon loolu njuumte la kon foofu li ñu bëgg a wax mooy kon bu fekkoon ne xadisu fasa yaraani fil yaqaza dafay tegtale gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu nelaw konoon saxaaba yi dinañ ci tegtaloo loolu te itam soxla woon nañ ko waaye saxaaba yi mosuñ cee tegtaloo loolu mosuñ koo xaar euh, taabi'oon yi mosuñ koy def kon loolu day war a ne tegtaliwul ko. déet euh, Oustaz il faut nga bàyyi ba suñ xalifa ñëw bu noppi parce que waxoon naa la ci sa biir audio bi booy ñëw nga andiwaale euh, sa ci wax ji ak sa commentaire ci ñaari page yële xalifa dugal léegi noppi booy ñëwaat. nee nañ la nga indiwaale sa tànqib ak sa commentaire ci ci page yu Ibnu Hajar xalifa dugal nga rëcc sa commentaire loolu mais nag il faut nga bàyyi xalifa ñëwoon fi ndax waxoon naa la ko ci sama audio bi ko déglu wala mu déet nga indi sa sa commentaire ci page bu njëkk bi xalifa dugal nga indi ko te waxoon naa la ci hadis bi nga wax ma lu ci borom xam-xam yi wax incha allah. waaw kay ma ñëw ba tey sama laaj bi ma di ko laajaat euh, Serigne Moussa di ko wax na itam yow da toxoon toxale ci taqdisul ashxaas fil fikri suufi loo xam ne mi ngi ci. ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في فتح الباري غورنا دم ما تخلينا وقت إقول أحمد لو دفع دغ واحد واحد إقول يوم غير لم لم لم لم دغ رك إنديكو لو لو نب تيلا لو في لير للفي لما دغ دول ني مي بوك سي بحلواني ياتو تقديس الاشخاص وخزع بلاته ديغا خا من ماكو بيند دغين نبول لول لا دغ دوغال ني ما دي لا واخ سي دا غناو با مانا لاجي نلا يو دا وخ ني لفظ الشاذ لا كوكا واخ wax ji mom man na naa ferank laay legi nek fi nam borom xam-xam yi waaw nee lo xamni ci jamono ay jamonoy waxu ñu lool ku wax shaaz la kan mako wax kan mako wax su fekke da nga ne daif ku ko wax il faut damay tuddu borom xam-xam na diw neena daif la diw neena na shaaz la legi ku ko wax mom la lay laaj waye su ma bala may mal malay baye ak laaj bi te ñëw leral la ne li nga wax jele ko ci taqdisul ashkhaf demewul non xam nga lan la lan la almazari wax xam nga lan la wax dafa ne إن كان المحفوظ فكأنما رآني في اليقظة فمعناه ظاهر كما يقول الله رنوح ينظر واحد دا يمول فوه في نوايا وإن كان المحفوظ فسيراني في اليقظة احتمل أن يكون أراد به أهل عصره كن مم في اللفظ بني خمنا دفع أم شك فكأنما رآني في اليقظة ak fa في اليقظة نياريو إلي yooyu من wax فكأنما رآني في اليقظة fa موي المحفوظ kon geneen wàll gi shaad la su fekkee nag safa yaraani fil yaqada loolu mooy al mahfuz kon gaal wàll bu njëkk ga shaad la kon ihtamala an yakuna kila shatrayni mahfuzan aw shaadan ci li almadari wax mais su fekkee da ngaa dagg wax ji daal di ne in fa in in kaana fa ka annama raani fil yaqada in kaana al mahfuz fa ka annama raani fil yaqada nu mu ko waxeeti in kaana al mahfuz fa ka annama raani fi l yaqaza fa maanaahu zahir daal di yem foofu daal ne junj na shusus bi déedéet man soxlawu ma junj de da nga naan ma diw nee na chaz la wala diw nee na daif la te sax lii nga wax junj ko loolu laa bëgg mu leer yow lii nga wax nii junjul loolu jegewu koo junj sax xam nga lu tax maa ngi liiraat li ma waxoon pour mu gën a leer ci mbokk ñuy déglu ñu yëg ne oustaz Moussa dafa dagg wax ji nga xam ne moom la Mazari yi wax jël genn wàll ga wàcc geneen wàll ga loolu mu dagg mooy li nekk ci taqdisul asxaas ahmad loo moo ko dagg ci ibnu hajar al asqalaani ci fathul baari léegi nag man dem naa ci ibnu hajar al asqalaani dem naa ci fathul baari fekk naa fa wax ja wax ja nii la demee إن كان المحفوظ فكأنما رآني في اليقظة فمعناه ظاهر وإن كان المحفوظ فسيراني في اليقظة احتمل أن يكون أهل عصره أراد به أهل عصره كن نيلا دمي كن بلغي اللي مدون وحرك موي بلغي لاج بما لاج ما لكوي لاجات ki wax shaaz la kumu du almaazari yi moom bu ko tuddaat wax ma ki wax shaaz la kan la ki wax na daif la kumu nu mu tudd ak dëkk ak mooy ban boroom xam-xam ak lu mu xam ki wax shaaz la daal man bëgg naa nga wax moom kumu foofu la wax ji nekk fi mu toll nii. waaw comme man mataluma woon cinq minutes euh, trois minutes vingt deux secondes moom laa amoon ma yokk tuuti ci li may wax may wax ne damay bañ wax ji di di di am ay jàpp di dem damay bëgg laaj yi may laaj. oustaz Moussa di ci tontu ndax ab xadis doo ñëw rek daan ne chaz la te doo wax ki ko wax umu sinon bu doon lool rek kon xadis bu la neexul rek da wax chaz la bu la neexul nga ne daif la damaa bëgg oustaz Moussa ñëw ci xadis bi wax kan wax ne chaz la parce que fi mu toll nii temps bi mi ngi dem te débat bi doxul ndax su ma wàccee benn audio balaa moo ñëwaat dañuy toog diggante bu yàgg du ñëw léegi temps bi mi ngi rey temps bi di dee parce que li baax mooy su ma wàccee mu wàcc parce que di def débat di gëstu mënul nekk. booy def débat day fekk nga waajal sa bopp pare lu luñ indi nga indi luñ indi nga indi soo jeexalee xam ne jeexal na mais su fekkee bu audio wàccee da ngay dem di gëstu jiwaat di kii nii di vocal di échanger kooku saway débat bi day day day day tardé te li war a ñëw du ñëw day tardé te li war a ñëw di ñëw waaye fi mu toll nii li ñuy xaar bariwul mooy kan moo wax ne xadis bi charge la ku ko wax ban borom xam-xam la fu mu dëkkoon an ana téere yu mu ana ku ko wax ci ban téere lañ koy fekk loolu daal mooy mooy li ñuy laaj fi mu toll Euh, ma ñëw def tànqib ci audio bi am na yum ci wax yu xaw a xoromu bokk na ci yum ci wax nee na ñoom ñi nga xam ne dañuy saxal gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañ koy saxalee an tariqil karaama ci yoonu loolu nag wax la joo xam ne da wax ngir bëgg nax nit ñi dëgg la am na boroom xam-xam yu wax karaama te borom xam-xam yooyu bu ñëwee ci beneen tomb bu ñaareel bi danañ xam ne ñoom la ñuy wax ak yéen tijaan yi ak ñi mel ni li ñuy wax du benn ndax yéen ñii de di atijaaniya ya da dangeen a am pas-pasu ne da ngeen di gis yonent bi sallallahu alayhi wa mu leen di jox ay mbir ak sax yeneen yoo xam ne aju na ci yoo xam ne loolu du karaama ndax li ñu xam ci karaama mooy karaama yàlla moo koy defal nit ki ne nit ki moo koy sàkku day dem ba jot rek yàlla defal ko ko te bu ñëwee ci buntu gis yonent bi sallallahu alayhi wa boo demee ci sufiyank yi ñoom dañuy wax ne loola da ngay toog di teewlu yonent bi sallallahu alayhi di ko xalaat ba keroog muy ñëwal la ruuxum gi ñëwal la di wax ak yow comme ni ko alfuuti yi waxee ci arrima kazalika ku mel ni adda baax moom tam wax na lu mel noonu te nag karaama moom kenn du ko sàkku kon ni ko abu ali aljawzijaani bi waxee ne kun taaliban lil istiqaama la taaliban lil karaama sàkku njub waaye bul sàkku karaama kon karaama du lu ñuy sàkku loolu mooy benn ñaareel bi mooy bu ñuy bëgg nax ni ñu naan karaama dañuy nax ni ñi rek ñoom jublu ci karaama pas la bu ñu gëm ndax yéen attijaaniya da ngeen a gëm ne su ngeen di wasifa yonent bi day ñëw aboubacar omar osman ali waaw léegi ñooñu moom lan mooy dalil bu fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi da ngeen daliloo ci ne man yaraa man raani fil manaami fa sa yaraani fil yaqaza léegi aboubacar ak omar ak osman ak ali ñoom ñëw gi ñuy ñëw moom loolu lan moo ciy dalil kon day wane ne kon da ngeen di bëgg laa ci buntu karaama ak yenn ci waxu borom xam-xam yi fekk ñoom sax la ñuy wax ak yéen li ngeen def du benn ñetteel bi mooy yéen yemalewu leen gis ku faatu ci yonentu bi sallallahu alayhi wasallam kese comme ni ma ko waxee léegi dugal ngeen ci Abubakar Omar ak Usmaan ak Ali waaye atta ci seeni sëriñ boo demee ci sufiyank yi ci seeni sëriñ sax saxal nañ ne dañuy ñëw di teew ci seeni jotaay saxal nañ ne dañuy dajee ak ñoom kon ñoom yemaluwuñ ko foofu kon bu ñuy bëgg wax ni ñu naan karaama ci buntu karaama amaana kay dañoo fekk borom xam-xam yi wax lu mel noonu ñu bëgg caa jàpp ngir bëgg lëndëmal nit ñi rek ñaareel bi ci li nga wax ci audio bi moy neeng isra wal mi'raj wa isra wal mi'raj yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam fa ak yonent ya fofu borom xam-xam yi lañu saxal moy ruhu ya la la fa dajel wa léegi isra wal mi'raj koku yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bi koku wama yantiqu anil hawa du waxe banexu bakanam lu wax deug la te isra wal miraaj yonent bi sallallahu alayhi wa dafa bokk ci ay particularité ay xasaisam yu mu jagoo moo tax ci boppam al xasaisul kubra da ko caa dugal moy yi nga xam yulunte bi sallallahu alayhi wasallam moko jago kon fofu la fa xew kenn du ci xiyaas kenen lolo tax do mo sa deg ñu la abou bakkar neena dajena yulunte yàlla musa wala dajena yulunte yàlla ibrahim wala dajena yulunte yàlla suleyman wala benen sahabi nettali ko wala sa taabiwoon yi kenn ci ñoom musul net lu mel non parce que lolo saxut motax ci kenn lañ ko saxal moy yulunte bi sallallahu alayhi wasallam dalil moko tek tale kon lolu kenn du ci kenn du ci tek tolo neena wax gi Ibn Hazm wax. léegi Ibn mu def ne dëppoo nañ ci ne yonent bi sallallahu alayhi ak ay saxaabaam du ñu dellu si ci aduna lu dul keroog ba ñuy dekki waaw loolu dafay wane ne du ñu dellu si waat ci aduna lu dul rek dañuy dem ba ñu dekk keroog la ñuy door a ñoom gis leen waaye ba keroog ñuy dekk duñ leen mën a gis di dajeeg ñoom waaye bu ñu dekkee nag foofu la ñuy mën a dajeeg ñoom gis leen loolu rek lay wane loolu leer na defe na amul lu ci lëndëm euh, bokk na ci wax nee na xadis bi mooy bi wax ne wax ji dafa nekk shaab nee na xadis bi wér na maanaam sëñ xalifa shaab buñ ko waxee day wér maanaam tariqa bi mu jaar day nekk lu wér parce que ki ko solo siqa la waaye dafa wuteeg siqaat yi kon loolu mooy shaab moo tax loolu munuñ koo layee léegi nag bu xadis ñëwee mel noonu dafay jaar ñu delluwaat ci leen xadis yi nga xam ne ñoom euh, ñëw nañ ci buntu boobu ñu dajale leen bu ko defee ñu door a mën a am résultat bu mucc كم علي ابن المديني وخون الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطاه جسنا دغلو بو سو جوبي جي توپ جسنا بيندنا اذكر القائل بانه شاذ وخال كان ما واخني شاذ لا واخنا لنا الماجد لنا ان كان المحفوظ فكانما راني في اليقظه فمعناه ظاهر وان كان المحفوظ فتراني في اليقظه من بو فكه محفوظ بي محفوظ مو جاكارلوك شاذ sag mooy loo xam ne kenn ki ko soloo siq la waaye mbooloo ma moom ñoom ay siqaat lañ waaye wute nañoo moom mbooloo mu ñooy almahfuz léegi almaziri bu ne bu dee mahfuz bi mooy bii lii leer na bu dee mahfuz bi mooy bële léegi man li ma la tegal lépp leeralal la ko nga xam ne benn tariqa kese mooy ñëw indi fasa yaraani fil yaqaba loolu kay kon tey wane ne kon boobu kese moom mooy saal yeneen ñi ñoom ñooy mahfuz wallahu aalam xam naa Oustaz Moussa temps bi mi ngi dem incha allah eh, ngeen jàppale ñu ci audio yi ngeen koy moom bu dee cinq minutes ngeen war ko wax ngeen def ko ñaari audio bu ko defee ngeen xaaj ko ci digg bi du ko def audio ñaari ñaari minutes ak ay seconde nga dimbaluñ ci oustaz Moussa bu ko defee duñu xaar lu yàgg incha allah eh, xam naa nag tomb ñaareel moom dañ koy tënk ndax bii jël na waxtu bu bari te mu ngi guddi xam naa ku ci nekk lu ci weesu ñaari audio eh, sëñ xalifa bu la neexee boo déggee audio mën nga see ñëw la taaka ñuy ñuy gagné temps la taaka muy pare ngay tàqi ci audio bu la neexee boo nga ngi ñëwaay ci ci tomb ñaareel def ñaari audio audio bi ngay tàqibee wax ni mooy audio bii ngay déglu ak bi ngay waxee ci tomb ñaareel bi bu ko defee ndax mu ngi guddi la mooy ndax léegi gis gi yow gannaaw Oustaz Xalifa d'accord nga dañ koy gis gannaaw léegi gis gi bu amee en tarixi karaama te loolu nga wax yow ndax yow am nga dalil ni léegi ginnaaw gi mën naa joxewaat ay mbir ci gis googu mën naa joxewaat ay mbir ci gis googa ñu koy jëfandikoo sari ànd na ko nangu wala déet bu dee am na luy firnde ji yow oustaz Xalifa yow oustaz Moussa yow tam kazalika dàq ginnaaw yow na oustaz Moussa mel na su ma déggee euh, même bu dee euh, société wax ñoom dañ koy gis te an tariqil karaama yow dàq nga loolu ñoom nee waxuñu loo waaye même yow oustaz Moussa ndax nangu nga ne dañ koy gis an tariqil karaama ndax bu tariqil karaama amee ñu gis ko ba noppi ndax dina joxe dara ñu sañ koo jëfandikoo wala déet incha allah xam naa ngeen jàpp ci nag tontu question yi ndax mooy tax waxtaan yi mën a dem incha allah ñu waaj nag ngir tëj ko mi ngi guddi. <laughs> maa ngi jégalu rek gars yi réew ma ma jàpp rek rek réew ma ma maa ngi jégalu Serigne Moussa yaa ngi xaw a soppeeku tuuti rek te yaa ngi xaw a soppeeku tuuti waaw ñun nag wax dëgg yàlla njabootu Cheikh Ahmed Tidiane piir lañ ndax himmam sax teewal na ma ba ma yëg moo tax lu débat bi di gën a dem da ngay gën di sonn lu mu gën a dem rek dangay ngay gën di sonn loolu moo tax ñu dem ci ñu ñu continuer ci masala yi gis nga ba léegi waxaguma kan moo wax ne shaad la yow ba léegi maasar yi li wax da nga koo daggoon sa yokk nga ci tuut waaye ba léegi yeggale woo ndax maasar yi dafa wax na in kaana al mahfuuzu fa ka annama raani fi lyaqada in chart la su fekkee mahfuuz bi mooy fa ka annama raani fi lyaqada fa maanaahu zahir loolu firiwul ne mahfuz bi mooy loolu dafa ne su fekkee ni dafa mel ne nga ne débat bi su fekkee ni oustaz Moustapha Diop moo koy animé man duma ci bokk kon loolu da ngaa charte waxoo ne moom moo ko moom moo koy doxal waaye su fekkee nga wax mu teg ci ne wa in kaana almahfuudu fasayaraani fi lyaqasa ixtamala an yakuna arada bihi ahla asrihi saa waay wax ji nii la demee wax ji nii wax ji nii la demee loolu moo tax ree jàpp ma kon yow ba léegi waxagoo kan moo wax ne charge la te itam wax dëgg yàlla débat bi pour mu neex soo waxee ne xadis bi chaz la da ngay wax ne diwa ko wax soo demee ci alfiyatu suyuti da nga fa fekk mu wax la ne atteb suduz mooy atteb doof comme ni ñuy attee xadis daif moom lañ koy jàppe naam wéroon na waaye bu fekkee dafa am siqa boo xam dafa wuuteeg ñu ko gën a nekk siqa loolu lañ wax mais fii wuute dafay amul fii wuute dafa amul su fekkoon ñeneen ñi dañoo soloo ne gis yonent bi yaqobatan mënu la nekk beneen xadis ñëw ne gis yonent bi man raani fil manaami fa sa yaraani ñaari xadis yi dañuy safaanoo ndax bi bu ne day weddi ja bu boobaa nag dañuy xool foofu la ñuy xoolee mu mu muxaalafatu siqati liman huwa awsaqu minhu foofu la ñuy xoolee foofu la ci moment boobu la ñuy xool loolu waaye wax yi daa wuutewul léegi nag kan moo wax ne chage la bul ma waxati Mazari ah Mazari bàyyil ma liira laatal la li mu wax ngir dootoo ma ka waxati in kaana al فكأنما رآني في اليقظة فمعناه ظاهر يم الفوفر في أحمر لو يم يم فد أحمر لو مولن سانك وإن كان المحفوظ فسيراني في اليقظة احتمل أن يكون أراد به أهل عصره لي ليلا لي واحد لي وقلنا فسيراني في اليقظة موي محفوظ وقلنا فكأنما رآني في اليقظة موي محفوظ إن لا واحد إن كان المحفوظ كن لولو ليرنا بلولو ليرنا اللي, اللي, وقت الإسراء والمعراج xam nga lu tax ñu indil la ko yow yaa ni nit ñi bu ñu faatoo dootuñu dellu si ci aduna nga di ko dàqe gis yonent bi yaqazatan nga ke yow kon gis yaqazatan loolu mooy dellu si ci aduna loolu moo tax gaa yi tuddal la yonent ya alayhim salawatullahi wa salaamuhu loolu tax ñu tuddal la waaye li ma gën a defi ree ci waxi ibnu xasma ji ne nit ñi duñu dellu si ci àdduna lu dul buñ dekkee man man yëguma woon ne buñ jekkee ci àdduna la ñu dellu si sama àlloo soriwul waaye loolu nga xam ne Ibnu Hazm wax na ko Ahmad Lo toxal ko ci téeréem bi nga tiim ko di ci débat man loolu laa yëgul woon man man yëguma woon ne eh, yëguma woon ne nit ñi buñ dekkee dañuy dellu si ci àdduna dellu si ci àdduna kay man moo ma jaaxal non xëy na man naa am am na mais awma ci awma ci ay ay tegtal waaw waaye daal loolu ñun débat wuñ dem bay dekki di ñibbisiwaat ci àdduna loolu ñun débat am na aaya yu ahmad loo tudd de te taqdis nga yooyu ko aaya yi nga xam ne ci lay waxee ne gis yonent bi yaqazatan mënu la nekk aaya yooyu moom boo koy tudd di dem laaxira léegi maa ngi lay xaar parce que yi nga fi indi woon yëpp moom daanaka moom def naa ko ci paña bi léegi li ma li ngay wax ne abou bakrin euh, kenn mosu koo dégg mu ne dajee na ma loolu déedéet mosoo dégg wala mosoo jàng yonent bi ne abou bakrin seytaane da koy daw te jàng nga yonent bi ne Omar ibnul Xataab cheytaane da koy daw te pourtant Aboubacrin moo gën Omar ibnul Xataab moo ko ëpp ngëneel te pourtant Aboubacrin moo ko ëpp ngëneel te pourtant kii am na masiya bu kee amul gis nga al masiyatu laa taqtadi al afdaliya masiya firiwul ne maa la gën man ngaa gën nit ki mu am lu loo amul ma jox la ko ci noddu ab julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñuy nodd cheytaane day daw waaye nee na bu ñu taxawalee julli seytaane dikkaat pourtant julli moo gën a foor nodd moo sunna la julli farata la te bu ñuy nodd mu daw bu ñu taxawalee julli mu dikk ndax da nga naan nodd gën julli kooku sëñ bi weesu nañ foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawal na di julli seytaane yom yor jumu safara ñëw di ko bëgg a lakk ba yonent bi ne ma fàttaliku ñaanu sama mbokk ma yonent yàlla suleyman rabbi igfir li wa hab li mulkan la yambagi li ahadin min baadi innaka anta alwahab ma bàyyi ko ne kon fii laa koy yeewu ba suba yii ñëpp ngeen gis ko te Omar ibn Xattaab yonent bi nee na ko mbedd boo sóobu seytaane sóobu meneen mbedd di la daw ndax dañuy wax ne Omar moo moo moo ëpp ngëneel yonent bi sallallahu alayhi wa déedéet kenn du wax loolu kon yii ngi fi wax yépp naaxaay na ma dellu nag di la laaj tuddal ma kan moo wax ne xadis bi chaz la laaj boobu nag mënuñu koo ñàkk a laaj kan moo wax ne xadis bi chaz la il faut ñu laaj la ko ndax maazari waxul loolu daañu li ma duwal dafa sew xaaral ma bind mbindam maagari mi mun a dajji ci groupe bi yéen ñëpp ngeen di janaw moom ngeen xam ne imam Moussa lii mu indi nii wax dëgg yàlla <laughs> amul bopp amul génn ah, takallama kathiran walam yaqul shay'an xam naa ma ñëw ci jéem a def tanqib ci audio yi comme déglooguma yeneen yi ngir ñu gañe temps bi seen xalifa nee na euh, li ma wax ci taqdisul ashxaas laa ko jëlee waaye dama koo dagg da melni ne seen xalifa yow limay wax deglu woko bu baax man indi na waxu al maziri bi mané maziri daf na in kana kaana almaxfuudu faka anamaari faka anamaara aani fi yaqza fa maanaahu zahir wa in kana al mahfuz fa sa yaraani fi lyaqasa kon loolu indi naa ko indi naa ko mu leer bu fekke ni ñi déglu xam nañ ko legi nak bu fekke ni al maziri neena al mahfuz legi li ñu am moy kon mahfuz mom amna legi nak fu mahfuz amé rek muqabil saaz manam hadith fu ñu ne rek saaz la jakarlo kon buñ ne mahfuz am na ci hadis bi kon chaz am na léegi nag almaziri yi moom dafa wax ñaari ban moo ciy mahfuz léegi leeral la naa le ci biir wax ji wane ne mahfuz bi mooy yeneen yi waaye chaz bi mooy fasayaraani fil yàqata ndax moom benn yoon la ñëw ci benn tariqa fukki saxaaba ak ñaar fukki yeeg benn kenn nettaliwu ko ci benn saxaaba bi juróom ñi ñëw ci moom jëlee ko ci moom ñeent ñi kenn nettaliwu ko ci juróom ñi encore ci ba ci ñëwee ba ci am na ñeneen ñu ko jëlee ci ibnu mu amaat lu mat juróom benn juróom ñaar ñe ñenn ñi dañoo sikki sàkk kenn dong moo ci wax bi jeexate gis mu ne fasara fasayara ni fil yàqu da kon loolu lay wane ne boobu mooy saab bi loolu moom leer na bu fenaa ci koo xam ne xam na dara ci euh, wàllu xam boobu di xadis ak musaloo xadis yu mel noonu kon loolu leer na beneen bi mooy euh, sëñ xalifa beneen bi mooy nee nga bu fekk audio bu wàccee da ngay gëstuwaat alhamdulilah débat bi pare nañ ko bu yàgg boo gisee ñuy def audio yu gudd di bàyyi di la may temps mooy bëgguñoo jël waxtu yi waaye mën nañ cee wax fii ba suba alhamdulilah léegi sëñ Moustapha ñu ñëw ci tontu la ci li nga doon wax ci borom xam-xam yi mënuñoo wax borom xam-xam yëpp li ñu wax boroom xam-xam yi ku mel ni An-Nawawi ci sarxu sahihu muslim daf ne borom xam-xam yi wax nañ ay wax ci fasa yaraani fil yaqaba mu indi ci ñetti wax mu ne ñenn ñi nee na benn wax bi mooy an yuraade bihi ahla asrihi ñenn ñi mooy kon ki ko gis ci nelaw dina ko gis ci yeewu ne mooy ñi doon dund moom mu ne maanaa bi mooy man ra'aahu fi nawmi walam yakun haajara yuwaffiquhu llahu lil hijrati wa ru'yatuhu sallallahu alayhi wa sallam fil yaqsadi ayaanan mu ne maanaam mooy ku ko gént gis ko ci nelaw ci jamono moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam te fekk ku ko gàddaayegul woon gis ko yàlla dina ko defal tawfiq mu gàddaay gis yonente bi sallallahu alayhi mu ne loolu am nañu ko wax mu ne ñaareel bi mooy da koy gis gis goo xam ne dafay dëggal gis gim koy gis ëllëg yowmal xiyaama ndax ëllëg yowmal xiyaama nit ñi dinañ ko gis mu ne kon gis gim ko gis ci gént gi dafay dëggal ëllëg gis gim ko war a gis yowmal xiyaama mu tekki ne ndax yowmal xiyaama mboolam xeetam dinañ ko gis loolu mooy ñaareelu wax bi mu ne ñetteelu wax bi mooy أنه يراه في الآخرة رؤية خاصة في القرب منه موي دانكو غيس ألك آخر ألك على آخرة غيس غو خامني غيس اسبيسيال لا أك غو خامني دا فاي جيغي يونتي عليه الصلاة والسلام أك أم أمر مام أك يمل نونو كون لول موي واخو نووي كي بيمي شرح واخ جوجي فخا يراني في اليقظة كذلك أن ينن بروم خام خام يوكو شرح واي داماي دويلو داماي دويلو لولو كومين الحافظ ابن حجر ميغا خامني مام لا سيغ خليفة دون تودو moom bi mu koy sarxa indi na ci ay ixtimaalaat yu bëri waree ne ñi bëgg a wax ne dañ koy gis fii ci aduna mu ne loolu moom euh, day nekk muskil day nekk problème waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa am na ñu bëri ñu gént gis ko ci du bi saxul na ñooñu gis nañ ko ci yàq la te bu fekkoon ne loolu lay fii ku ko gént gis ko ci nelaw di ko gis ci yeewute konoon amul kenn kuy wax ne gént naa ko gis ko ci nelaw lu dul ne dana wax ne gis naa ko ci yeewute te am na ñoo xam ne ne nañ gis nañ ko ci nelaw te ñooñu kenn si ñoom newul ni gis na ko ci gis na ko ci yeewute ak yeneen yu bëri yoo xam ne yu bari indi na ko. waaw Serigne xam nga ñun ñëpp ay gëstukat lañu. yow gëstukat bu mag nga man mii damay gëstu. taqdisul asxaas fil fikr suufi jàng naa ko ba xam ne ngay wax lu ca xaw ma ko yombul bunt bi ñuy wax nii ngay wax te xaw ma ne euh, ca loola ngay wax <laughs> loolu yombul téere la boo xam ne jàng naa ko bu baax a baax a baax a baax. léegi yow waxi maasar yi ji dugalaat naa ko te groupe bi ay boromi xam-xam a ngi fi in kaana almaxfuudu fa ka annama raani fi lyaqada fa maanaahu zahir wa in kaana almaxfuudu fa sayaraani fi in kaana almaxfuudu fa ka annama raani fi lyaqada fa maanaahu zahir وإن كان المحفوظ فسيراني في اليقظة احتمل أن يكون أراد به أهل عصره بن لما وحنا موي المحفوظ إن كان كذا فكذا وكذا وإن كان كذا فكذا وكذا نحن نيلا ها أنا أقول لك عربي وبيس دفعم إن كان المحفوظ كذا فكذا وكذا وإن كان المحفوظ كذا فكذا وكذا kon legi nan nga mëna tuddé ben bi rek dañ lool lañ wax dédé motax man آه، dama bëgg rek su fekké am nga ab borom xam xam bu wax né lafu bi nekk ci bukhari shadla nga wax ñu ko te bañ ñoo wax mazari ndax mazari waxam jaa ngi nii yow bi nga ko njëkkee liir yaa ngi yemoon ci in kaana almahfuudu fa ka annama raani fi lyaqza fa maanaahu zahir foofu nga yemoon bi nga ko njëkkee liir audio yaa ngi fi te ahmad loo ba mu koy tuxal foofii la yemoon dagg li ci des loolu yi mu dagg moo moo leen moo leen nax léegi nag man ma continué affaire bi ma ko continué nag yow bi ñëwaaté ci nga ci dolli wa in kana al mahfuz fa sayaraani fil yaqaza dal di taxawé fo xamné kenn du fi taxawé lool bo fi taxawé jumla bi amul maana yow fi nga taxawé ni jumla bi amul maana so ne in kana al mahfuz fa kaannama raani fil yaqaza fa ma'naahu zahir wa in kana al mahfuz fa sayaraani fil yaqaza dal ne pat pataral wax ji agul amul maana da nga ci tejne ihtamala an yakuna arada bi ala asrihi wax ji doore yenu maana motax mo man sañon da nga may tuddal kan moo wax ne lafz bi charge la xam nga ñun dañ ne woon ñaari point la ñuy jël gis yonent bi yaqasatan ndax mën naa nekk man indi naa ci ab xadis doon xaar nga nga nga nga nga nga nga nga wax kan moo wax wérul kan moo wax charge la ba tey waxoo ma waaw ba tey indiloo wax dëgg yàlla xam nga lii nag wax dëgg yàlla in kaana almaxfuud fa ka annama raani fi lyaqada fa maanaahu zahir wa in kaana almaxfuud fa sayaraani fi lyaqada in kaana almahfud fa ka annama yaraani fi lyaqada wa in kaana almahfud fa fa yaraani fi lyaqada nga ne benn bi la wax taw ñaari wax yëpp nekk fii nekk nii ma bindal la ko ba noppi rëyal mbind mi dijjal ko mu ne fanga fangaar yaay yéen ñi jàng arab wax leen kat lii nag lii oustaz Moussa nag lii moom lii moom moom moom moom moom mu ne su koo dégg lii moom mu ne su koo dégg su ko defee kon bu fekkee am nga borom xam-xam bu ko wax indil ñu ko su fekkee amoo ko waxal amuñu amuma ko rek nga bàyyi xadis bi mu wér borom xam-xam yi niñ ko wérale bi ci des mooy li ngay wax gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñun ñooy wax ne an tariqil karama ñun ñoo ko mujj wax loolu ñun ñoo ko mujj wax ibnu ibnu xajar al haytami wax na ko boo demee ci ci al fatawa al hadisiya wax na ca ne ankara dalika jamaatun wa jawazahu axarun وهو الحق فقد أخبر بذلك من لا يتهم من الصالحين بل استدل بحديث البخاري من رأني في المنام فسيراني في اليقظة لي ابن حجر الهيتمي وخنكو تي لول موخ جلال الدين السيوطي دقل نكو تي لول محمد بن أبي جمرة سحل نكو بودي ميشي مختصر البخاري وخنني وخنني جس يننتي في اليقظة عن طريق الكرامة لي أمي تي الحافظ السبكي دقل لولو abu hamid al ghazali deugal nako don tan abu abu abu hamid mom du ngeen ko du ngeen ko num tudati mais al imam ibn al hajj al maliki saxal nako al imam al hafiz al yafi saxal nako al imam abu bakr ibn al arabi al maliki saxal nako ibn battal saxal nako ibn battal dafa wax ne fa sayarani fil yaqza yuridu تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها لولا وخروجها على الحق وليس المراد يوم القيامة moo tax faw boroom xam-xam yi ka lañ wuute yow waxagoo ci la boroom xam-xam yi fa ñu fa seen wuute nekk waxagoo ci mooy ñi naan non danaka gis yow man xiyaam ñi naan déedéet waa jamonoom la ci jublu foofu nag maa ngi la fay xaar foofu moom yaakaar naa ne doo fa dem aayaat ya jiitu woon itam ci ci Ahmad loo indiwoon woon ko yooyaat bul ko laal léegi fa sa yaraani fil yaqazat ku wax charge la maa nga la koy laaj. waaw sëñ Xalifa daa mel ni da ngaa yàkkamte ay mbir yu bëri am loo yaakaaroon amul moo tax nga naan ma yaa ngi tiim taxadis am na ay mbir yoo xam ne taxadis indi na ko te ñëwagoo ci suñ bi nañ waxtaan rek li ma lay wax mooy bi may leeral nee naa la lii cosaan mooy nit ku faatu moom du dellu si ci àdduna loolu mooy cosaan léegi nag bu ñu waxee naa nga mooy cosaan dañu lay bëgg a wax ne la bu amee luy génnee cosaan boobu dalil la moo tax may la bu amee kuy bëgg woote loolu indi dalil léegi nag dajee ak ku lañ cay saxal yëpp ci dalil lañ ko teg liñ ci saxal ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu dajee ko ak yeneen yonent yi ci dalil lañ ko teg waaye benn waay toogul rek créé ko kasaalika keneen toogul créé ne diw dafa daje yonent yàlla Ibrahima wala dafa daje yonent yàlla Moussa wala Aboubacar ak Omar dañoo dajeeg nangam parce que dafa saxut moo tax parce que loolu mbir la moo xam ne dalil lañ koy dalil lañ koy saxale ñaareel bi mooy mbir moom ci boppam mbirum xaybu la mbirum kumpa la te li ñu xam ci kumpa mooy tawqiifiya la al aqida kooku tawqiifiya la kooku dalil nga koy saxalee moo tax mbir mu mel nii dalil la laaj waaye laaju rek ay nit ñuy wax nii moo tax mboolem yi ngay indi ci ay wax ay wax yi boroomi xam-xam di ko dëgëralee loolu yëpp du nekk dalil pour saxal lii ndax lii saxal ko dalil la laaj min al kitaabi wa sunna wal ijma xalal aqal qawlu saxaabi te yooyu yëpp doo ci am benn bu dee li ngay wax ci maziyya nag naan Aboubacar moo gën a Omar te Omar seytaane da ko doon rew te Aboubacar amul loolu loolu de xamul man wax ji lu mu fi wut ndax man tudduma fi lu mel noonu dama laa wax ne al adillatu shar'iyya kenn mënu cee tegtaloo loo xam ne saxaaba yi ñoom a dalil boobu mu ngi woon ci ñoom te yow li nga ci tegtaloo ñoom mosuñ ko caa tegtaloo te mënoon nañ koo def mu indil la waxu imaamu Shaatibi kon saxaaba yi mosuñoo tegtaloo fata yaraan yi fil yaqaba ci ne dañuy gis yonent bi ak yeewuteem moo tax kenn si ñoom mosu koo woote taabion yi mosuñu koo woote at baaw taabiin yi mosuñu koo woote sufiyank yi kay ñoom ñoo ñëw commencé di woote lu mel noonu waaw kon loolu moom eh, tegtali wu ko ndax bu ko doon tegtale du nëbbu saxaaba yi comme ni ko al imaamu di leeralee waaw kay ma ma ma dajji audio bi moom itam lii la oustaz Moustapha Diop doon laaj ak ñu ko tontu bokkul oustaz Moustapha li mu doon laaj mooy yan boroom xam ñoo wax ne xadis bi lafz bi chaz la loolu la lay laaj lan la borom xam-xam yi wax ci xadis bi li mu ci jublu mooy ñan ñoo wax ne chaz la lii ngay wax waxi al imaamu nawawi al imaamu nawawi mosula wax ne xadis bi chaz la indi nga tafsil bi mais tafsil boobu ci laa lay topp al imaamu nawawi dafa wax ni fa sa fil yaqaza xam nga moom mënta dàq lafz kon lafz boobu moom la moo tax ñoom ku ci jàngale hadith bi lafz boobu da ngay jéem a seet nuñ koy déggee waaye nuñ koy wàcce kay doo ko xool doo seet ñu koy wàcce mais ñu koy déggee rek ngay xool moo tax al imaamu nawawi wax ne fa sa yaraani fil yaqaza lim ci jublu mooy da nga ma gis alaxira foofu ibnu abi jamra damat na damat na wax jooju te mooy al yaqaza mësula firi alaxira bokkul sax ci asmaul qiyamati yowmul taxaabun xam nañ ko yowmul axira xam nañ ko yowmul qiyaama am xam nañ ko yowmul jamce xam nañ ko yowmul xasra xam nañ ko يوم التلاق كم نك يوم اليقظة أمر اليقظة بوكو سخت أسماء القيامة تيتم مم دقة بكاري سخ دنن جس يوم تبي يوم القيامة ليل كن لو يوم تبي وحنا كوجين تجسما دنا ما جس يوم القيامة يوم القيامة أم أي جا جاي بني دوا يدم سيرن في آدم pour mu ramb leen mu gàntal leen ñu daw dem ci yonent yàlla Moussa daw dem ci yonent yàlla Ibrahim dem ci yonent yàlla Aïssa ñëw ci yonent yàlla Mouhamad wax ko seen soxla mu faj ko te ñooñu dañ daan def ay bàkkaar ay jullit lañ waaye dañoo am ay bàkkaar kon ñooñu même bu ñu ko gisul woon ci àdduna danañ ko gis kon naan fasa yaraani fil yaqaza liñ ci jublu mooy da nga ko gis yowmal qiyam kooku moom ibnu abi jamra leeral na ko ba mu naa ñit boobu moom li yi naan dajjil beneen paquet ba nga dajji woon dafa jeex beneen bi mooy li ñu wax ne euh, beneen ixtimaal bi mooy liñ jublu ci man fasa yaraani fil yaqaza mooy waa jamonoom te koo xam ne gént nga gis ko sa gàddaayoo da nga ko gis déedéet amul benn qarina du qarina lafziya du qarina xaaliya buy tekkale loolu léegi kon su fekkee ni man raani fil manaami fa sa yaraani fil yaqada li muy firi mooy ku gént gis ma ci sama jamono ji te fekk man ak yow ñu bokk jamono da nga ma gis ci yaqada kon kay man raani fil manaami faqad raa al xaqa booba yonent bi waa jamono dong la ci jublu kon xanaa kon mooy ci sama jamono ji daal ku gént gis ma man nga gis saa waay wax ji du loolu wax ji du loolu kon loolu yooyu noonu benn du ci tegtal waaw yooyu noonu benn du ci tegtal leneen li nga wax ne Ibnu Xajar wax na ko wax ne am na ñu bari ñu gént gis ko te gisuñu ko yef te gisuñu ko fil yaqaza lan mooy dalil lan mooy dalil ne gisuñu ko fil moo tax Ibnu Abi Jamra wax na ni am na ñu ko gént gis ba noppi gis ko fil yaqazati beneen bi itam nit mën na koo gént gis ko gisaat ko fil yaqazati te du ko wax kon am na ku gént gis yonent bi te gisu ko fil yaqazati lool du lay lan moo la mën a wéral ne gisu ko ci gisu ko fil yaqazati lu lan moo ci sab tegtal li nga wax ci audio bi lépp dajee dara wéru ci waaw loolu dara wéru ci ñu dem salaamaaleykum oustaz Moussa oustaz Khalifa xam na oustaz Khalifa audio boobu muy indi bu ko wàccee baye boobu mu def audio bu mujj beneen kii moom ñu jàppal ko beneen dig ndax mi ngi gudd yow dem mu ngi guddi oustaz Moussa yow dem wàcce nga audio nii waaye bi ngay indiwaat nga wax ci sa kàddu gu mujj tàggoowaale ci incha allah euh, ndax mi ngi guddi te ñaareel tamit moom xam naa dañ ko mën a jël tey ñu bàyyi ba ngeen amaat jot rek ñu indiwaat ko waat ko xam naa it danañ am bis boo xam moom li ñuy def rek mooy dajale laaj yi ku ci nekk ñu wéet ak yow laaj la ko. ndax ndax am na ci laaj yoo xam maa ngi gis ni dëgg-dëgg mënoon nañ koo tontu moo xam Oustaz xam yow. yoo xam ne ku ci ne sa morom posé na ko xëy na ñi débat bi ne moo tax mënoo koo tontu waaye man gis naa ci laaj yoo xam dëgg-dëgg personnellement bëggoon naa jàkkaarloog oustaz Moussa laaj ko ko ak yoo xam bëggoon naa jàkkaarloog oustaz Khalifa laaj ko ko te te du doon débat ndax buñ ko tontoo defe naa ni li ngeen bëgg mu leer dina leer incha allah xam naa ko dañ leen di bàyyi seen audio yii bu ngeen ko wàccee rek bu ngeen ci togaat mu ànd ak seenu ñu bàyyi beneen tomb bi ba dellusiwaat incha allah. waaw audio bi itam dinaa di tontu sama kàl <laughs> sama kal nga ndax siise nga sant mais dama lay wax ni la dalil kay am nañ ko man raani fil manami fatayarani fil yaqaba lañ la indil comme dalil yow nga ne loolu charge la ñu ne la kan moo wax ne charge la mënuñu koo wax loolu kay mooy problème bi yow boo ñu mënoon a wax kan moo wax charge la rek coow li day jeex yow waxal sa waxal sa digganteeg sa borom sëñ Moussa Mazari yow ndax mën ngaa waat ne Mazari wax na nee na charge la man mën naa koo waat te man d'accord naa sax man ak yow ñu mu baaxala ci ñu mu baaxala teg sunu njaboot teg sunu lépp ci ne maazari yi waxul na chaz la naft baa ngi nii ndax yow man nga loolu yow in kaana al mahfuzu kaza wa in kaana al mahfuzu kaza indi ñaari yëf nga ne nee na nee na chaz la sëriñ bi junjul sax junjul sax chuzuz foofu waaw junjul sax foofu chuzuz kon léegi kan ma wax ne chaz la maa ngi maa ngi déglu sa sa sa quarante neuf secondes yi ah beneen bi li ngay wax ci ne euh, saxaaba yi mësuñu koo gis dadul charte ci ne nangam balaa wér saxaaba yi dañ koy mas a gis loolu du ci charte loolu moo tax ñu indil la maziya bi ku ku dul ab saxaabi yi yàlla man na koo may lu mu dul may ab saxaabi yi comme ni nga xam ne saxaaba yi ci seen biir ña gënoon a mag gënoon a tedd léeg-léeg yàlla may ku gën a ndaw la ko gën a la a mag dul am abu hurayra wax na ko ci xam-xam ne jële naa ci yonente bi ñaari ndabi xam-xam benn bi wasaareel naa leen ko benn bi su ma ko waxoon ngeen rendi du tax ñu ne abu bakr abu hurayra moo ëpp daraja yeneen saxaaba yi loolu moo tax ñu wax ko li tax ñu wax ko leer na léegi kon taabiun sàng taabii sàngam amul lii kon kon benn waay mënu koo am ci 2001 gii loolu loolu du wax loolu loolu loolu loolu dara loolu du wax dafa mel ne kon léegi ngëneelu yàlla yi daal yéen yéen a koy séddale ku njëkk ka la muy am ku mujj ki lu tuuti lu gën a tuuti loolu la war a am déedéet demeewul noonu léegi nag man dama bëgg sax nga ñëw ci laaj bi nga ñëw ci laaj bi te mooy te mooy sa yaraani fil yaqaba kan moo wax ne charge la man laaj bi xam naa dootuma ko laajal waaw dootuma ko laajal ndax xam naa ne soo amoon tontam tontu nga ma bu yàgg léegi laaj boobu moom bàyyi naa ko léegi bu la neexee bul ci tontu. waaw suñ xalifa mën ngaa indi waxu ibnu hajar a xaytami mën ngaa wax mën ngaa indi waxu ibnu abi jamra mën ngaa indi waxu suyuti mën ngaa indi yeneen wax yëpp mais dama ne wax yooyu yëpp saxalul li ñuy wax wax yooyu yëpp saxalul nii ñuy wax dalil alquran wa sunna wala ijma wala alal aqal qawlu sahaabi te loolu mënoo cee di benn léegi nag dama leen di wax ne yéen yéen sufiyank yi rawatina yéen ak tijaaniya su ngeen di lëm nit ñi naan leen han tariqil kalaama da ngeen leen di nax yéen da ngeen a am pas-pasu gëm yi gis yonent bi sallallahu alayhi ci lu dul nelaw ngeen woote ko waaye yemaloo leen ko ci moom da ngeen ko indi ñeneen ba pare yokk ci sax ñeneen ni ñoo xam ne sax du kon bu ngeen di wax karaama da ngeen di nax gaa yi nii rek pour bëgg ñu gëm leen léegi dee na ngeen indi nag waxu borom xam-xam ya nga xam ne ñoom saxal nañ loola ci xam tariqil karaama ngeen bëgg ko daliloo te ñooñ sax nag la ñuy wax ak la ngeen di wax du benn ndax amul kenn ci ñoom koo xam ne dajaa caa saxal ne nga ñëw ci ñoom mu jox la dara nga jël kon loolu defe naa ne nekk na nekk na lu leer. xam naa ñu ñaan leen rek ngeen tëj ñaari mbokk yi Oustaz Khalifa euh, tëj leen rek ndax it dëgg-dëgg buñ toppee mi ngi gën a guddi li ma wax rek laay waxaat man am naa laaj yoo xam ne gis naa ni bëggoon naa ñu tontu ko waaye incha allah ñu jàppal ko dig rek beneen point bi ñu jàppal ko dig am na it loo xam ne bëgg naa moom muy laaj yoo xam ne moom dañ leen ko war a jëmale te du doon débat ndax it am na laaj yoo xam buñ ko tontu woon mu leer te tontuwuñ ko euh, ci yéen ñaar ñëpp incha allah nañ leen nañ tëj rek ndax waxam ji moom du jeex nañ tëj incha allah nañ tëj ba ba dellusiwaat ci ñaareelu point bi rek danañ ci dellusiwaat incha seen xalifa yaa ma may reeroo nag nee nga ndax yow mu yàq ba dafa am yow ma xiyaam ay turam yow mu yàq ba amu ci <laughs> seen xalifa fasa yaraani fil yàqasu mooy dërëm a gis ci ak yeewute ndax yow ma xiyaam nit ñi dañuy yeew wala nit ñi dañuy nelaw defe naa nag xam nga yow yeewu kon borom xam-xam yi ñoo am ñu tawilee hadis bi loolu nee la nag imaamu Nawawi nee na gis gi am na ñoo xam ne ñoo wax ne gis gi gisu jege la gisu particularité spéciale la loolu tawil la ci hadis bi waaye man damaa jàpp ne xadis bi maxfuuz bi mooy faka ma raani fil yaqaza loolu mooy maxfuuz bi te loolu moom li ko almasri waxee fa maanaahu zahir leer na naññi mooy ku gis yonent bi sallallahu alayhi wa mel na ni gis nga ko ci ak yeewu ndax seytaane mënu koo soppaliku ni ko ki yeewu gisee ne ko jàkk yow mi ko gis ci nelaw itam mel na da nga gis ci ak yeewu xadis bi loolu doo nga lay firi ndax baat yi yeneen xadis yi moom moo moom moo tegtale loolu waaw kon man euh, audio bi may bi may tàggoo ndax xam naa ne débat bi waroon naa gën a a neex ni ndax débat bi dafa dafa yéex <laughs> dafa yéex lool ojo <laughs> boo ko wàccee balaa ñu lay tont day yàgg lool lool lool lool euh, sama waa moom xam naa jàmbaar la lool waaye man li may tàggoo mooy dama ci indiwaale benn xadis boo xam ne mooy xadisu Bamratu saaxla Saalaba ndax waa dafa wax ni sahaba yi ci seen bopp mosuñoo loolu mosuñu koo am mooy gis yonent bi fil yaqaba ah ah sahaba yi am nañ loolu wala boog am nañu ko ci am ci may tudd nii mooy bamratu bnu salaba dafa ñaanoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko udu udu udu li bi shahaada ñaanalal ma yàlla mu may ma ma shahid nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko allahumma inni uxarrimu damat na taalaba ala almushrikina walkuffar am ñu def allahuma xarrim mooy yàlla yal na nga ko musal ci mushrikina yu kuffaar yi bu ñu jot ci deretam bamratu bnu abi taalaba daan na bamratu bnu taalaba daan na dem ci xare nee na bu taxawee ci làng gi day seen yonent bi ci làng gële te boobu yonent bi dundatul de mu xeex ba yegg ci làng boobu seen ñi mu àndal ci làng gi mu xeex xëttaat ba yegg si fi mu nekkoon ba ñi àndal doon ko wax naan ko yaa ngi yaa ngi jaay sa bopp mu naan yonent bi ay seen ca geneen làng gëlee moo tax may xeex ba yegg foofu te xadis boobu xadis bu wër la sanad bi am na ñu ci coow mais boo jàngatee sanad bi coow li lu lu yomba lu yomba dindi la waaw coow li lu yomba dindi la Baqiyatu bnu Walid rek moo ci am problème te Baqiyatu dañoo wax ni lépp lu mu solo ci ci siqa wala mu soloo ko ci ulama u sham rek loola dafay wér du am lenn jam-jam te xadis bi ci yooyu la bokk ci ñi mu ko soloo ci saami yéena lañ ci saami yéena lañ bokk la bokk te itam siqa la kon euh, euh, alhaysami indi na ko ci majmau zawaid wax ne isnaad bi xasan la naka noonu boo demee ci darru saxaaba ash-Shawkaani indi na ko fa muxaqiq ba dem na ci Hamish ba wax ne isnaad bi xasan la naka noonu boo demee ci Ibnu Kathir ci jaamiu sunan Ibnu Kathir indi na fa xadis bi wax ne isnaad bi xasan la te ñii ñu xam xadis lañ kon léegi la ana lan mooy saxaaba yi mësuñoo am masiya bu mel noonu ah kay mas nañ koo am xanaa ko da nga naan ko wala xamuma ko loolu ngay wax mais mas nañ ko am su ko defee kon loolu mooy li may. li may li may tàggatoo maa ngi baalu ak euh, oustaz Moussa bu baax nag ndax nag man man nii lay débat ñi yàgg siiwu sama débat xam nañ ko man moom sumay débat du ma du ma ko raay di ak di lewatal waaw ah, waaye nag macha allah amul benn jafe-jafe sama sama sama nuñ koy waxee sama sama sama gàmm la mais ñu xam ne ba tey xadis bii di man raani fil manaami fa sayaraani fil yaqaba man xalifa mbuub maa ngi lancé défi mboolem wahaabi yoona yi ku ma mën a indil benn boroom xam-xam bu mas a jam xadis boobu ku ma ko a indil na ma ko indil ku ma ko mën a indil na ko indil ak fu ko mën a jëlee nag laa wax ku mën a indi benn boroom xam-xam bu jam xadis boobu na ma ko indil beneen bi nag moom dama koy laaj waa majmuwa bi mooy waxi maasari waa ji nee na maasari moo wax ne chaabi te man li ma gën a mett te gën maa jaaxal mooy dama koo laaj kan moo wax ne change la mu naan Mazari Mazari junj na ko xanaa xamul ne lool la Ahmad Lo bind Ahmad Lo dafa bind na Mazari junj na shuzuuz bi xamul sax mu defe ne boo toogee da xam ne man xam naa ne taqdis la yor loolu la bind Mazari junj na ko ba noppi daal di indi genn wàllu wax ci dagg geneen wàll ci sëriñ bi Mazari waxul loolu Mazari waxu fi benn shuzuuz waxul ne lafzu sàngam mooy shuzuuz دفع واحد إن كان المحفوظ فكأنما رأني في اليقظة فمعناه ظاهر وإن كان المحفوظ فسيراني في اليقظة احتمل أن يكون أراد به أهل عصره كون هي يقبعي لي نير كو نجي دكو نجو كم نكو أحمد لو نجي آية يمي خمنا نجي موي موي تلا أحمد لو سكو نكو ونجير تري دي واحد نجي سيران في يقظة من لنك يوي ريبا تفلا يوي موم <laughs> يوي موم parce parce que yooyu bu ko indi woon dama koy wax rek lii moom ak ñàkk teggin la loolu laa koy wax waaye falilahi alhamdu jotu koo indi ala kulli xaalin maa ngi sant oustaz Moustapha Diop ci ni mu doon diriger débat bi di sant oustaz Jibril mi nga xam ne moo créé débat bi di sant mbooloom waqul ja al xaq wa zahaqa al batil inna al batila kaana zahuqa di sant itam sama sëriñ sama wasila ashraf ahmad tijani al qutbi al maktum al أبي العباس رضي الله تعالى عنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصرنا وفوه مم ننشي بنا من سجلنا بفرقة سجلنا بنا فرقة فسيراني في اليق من لما بقى جاهل في يوم يوم نيجا لفظ بي شاذنا لفظ بي من بفكر شاذنا اللي وار ما ينوش كان تجلي يترس ba yàgg yow nga ñëw na léegi nag da ngay da nga koy jéem a tawil ah xanaa du change شاذ له وايا ان جيل ني دنجكاي تاويل ياي ني ني دنجكاي تاويل في اليقظه موي في الاخره اليقظه كان في الاخره واحد لول غير من تاويل بعيد جدا تاويل بعيد جدا اليقظه دا موي كيوت ليغا واخنا يوم القيامه بن فنلو دنج فاي ييو دنج فاي خوله وا فيتيم دنج في خوله دي يو ياي يعني ني نلا وو فيم دولو ني ما يو ا غاي ني تيولو نلو ونج دي تدي مغو يوم القيامه يوم القيامه دا منلا ميم ديسكو بكاري صح دلن كثيرا نبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة دفنا الشفاعة الكبرى حديث بوه يا بقى جن جان كم دي واحد كوه بيسيد دنك بيسي يوم القيامة كوه مم دواي دواي شيء ولا نام دنك بيس بيس بوه خمنا بو بو بو بو أم خصوصية لا جل نيب كاي بيس بيس بوه خمنا بو أم خصوصية لا يلا كوه نيت هي نيب دنك بيس بيس بوه خمنا بس بيس يلا يلا على كل حال دال من رأني في المنام فسيراني في اليقظة حديث بوه هو تبقى يوم القيامة loolu daal moom mooy li gën a gàtt. Cheikh xam naa balaa may tëj gis naa suñ xalifa rawee ma ay audio waaye dinaa ci ñëw faw ma jéem a déglu yooyu nag dem cee temps yi door a mën a tëj incha allah li njëkk mooy suñ xalifa yaa ngi naan chab di ko répété waaye bu fekkee ne xam nañu dara ci xam-xamu hadis xam nañu al fu fuñ ko waxee rek muqaabil chab maanaam foo ne mahfuz rek da naan chab ndax boo ne mahfuz moy lo xamne siqar yi ñoko solo waye mukhalifa lima rawahu siqa legi nak la nga xamne ab siqa moko solo soloo moy shab kon al maziri bu waxe ne in kana al almahfuzu fa ka anma raani fi al lyaqza fa ma'nahu zahir wa in kana al almahfuzu fa sa fi al yaqza loolu day wone ne kon mahfuz mom amna legi nak kon mu ngi junñi ne kon amna shab legi nak ban mo ji shaaz ci ñom ñaar leral na ne bi nga xamne ne turuq yim jaar yëpp ben yoon li ci ñëw loolu moy shab loolu moom defe naa ne ñi xam dara ci xam-xam bi moom duñ ci werante loolu leer na dégg naa la ngay wax itam ci ay masiya ay diw am na nangam te beneen saxaaba amu ko loolu amaana dangaa jàpp ne lu ma doon wax la waaye waxuma ci moo tax nga koy indi man waxuma ci loolu man dama ne ad dalilu shar'i bu fekkee ne saxaaba yi mosuñ koo jëfee ci mbir sàngam te mënoon nañ ko jëfee loolu day wane ne dalil ba tegtaliwul lool bu keneen ñëwee ne dalil ba lii lay tegtale te fekk loolu saxaaba yi ñoom mosuñ ko cee jëfee mosuñ ko cee déggee koko moo juum mu indi la waxu al imaamu Shaatibi ne ku indi loolu yow la nga jàppee dalil ne loolu lay tegtale tegtaliwul loola ndax da ngaa wuute ijmaawul awwalin te loolu doy na sa sa njuumte gis naa nga indi benn xadis muy xadisu Saalaba euh, donte liiruguma audio bi ci topp xadis bi gis naa ko xadis la boo xam ne wérut lutax hadith bi wérul moy hadith bi euh dafa am ko xamne ci sanad bi dañoo dañoo wax ne mudallis la mudallis la te mooy baqiyat al walid te dafa ana ana ci hadith bi dafa ana ana ci hadith bi moo tax alxaytami ci majmaw zawaid bim ko indee ne isnaduhu hasan cheikh albani da koo taaqib mu ne yéemu naa lool ci alxaytami parce que alxaytami indi na benen hadith bo xamne ne baqiyat ibnul walid mi mu ngi ci ba pare mu ne waaye mudallis la te fofu baqiya dafa tasrih bis sama daf ne hadathara te fi mom dafa anana ba pare alxaytami ne fofu isnadu hasan kon dafa anana fi kon lolu kon lolu day wane ne kon wax ji wérul ndax koku mudallis la won motax tax al imaamu nasaa'i nee na moom baqiyatu ibnul walid bula waxe anana anaana bul jël bayil waaye bu la waxee nag ne la xaddasana wala axbara ni boobaa jëlal kon xadis bi moom du lu ñuy du lu ñuy tegtaloo ci buntu bi wérut xadis ya nga xam ne ñëw na mu leeral ci ne dafa dégg moom baqiyat ibnul walid yëpp xadis yooyu yëpp amut ne ma gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca ba may xare yooyu benn amut ci maanaam ne ba muy xare dafa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca biir xare ba donte la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demul woon xadis bi ci ñëw wax loolu wérut amaana ya nga xam ne wér na daf ne damaa ñëw laaj yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaanal ma yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy ñaanal ca biir xare ba bam mu demee kii di nee na dafay commencé ci cat bi dem ba ci cat bële do xeex xeex yoo xam ne macha allah kon loolu la xadis bi tegtale waaye nag mu gis fa yonentu bi sallallahu alayhi wasallam loolu wérul